asalaamaaleykum euh, cher internet euh, tey nag euh, gis ngeen ñi ngi fii nii ci tableau xaadim bokk ci jàmm gën Sicap Mbao li ñu fi indi nag mooy li nga xam ne mooy làmb juree ji diggante Papa Sow ak ki nga xam ne moo di Siteu taalibe Bamba bi nga gis nag Baye Fall yi toog ku si nekk di xaar dimaas bi di ñëw bi si topp la làmb ji moo tax jàmm gën Sicap Mbao kenn tut ndax ki nga xamante ni moo di mbër mi di Siteu ma fekk bay Fall yi laaj leen na la ñuy dundee làmb ji asalaamaaleykum ngi lay ziare lu bari. alhamdulilah tur bi nan la. déclenché ah. waaw déclenché kon ñu déclenché jëm si làmb ji ah làmb ji nga xam ne mooy diggante Papa Sow ak Siteu nan ngeen koy dundee yéen waa Diamaguène Sicap Mbao. wax dëgg yàlla pare nañ bis bi la ñuy xaaral bis bi moom yàggatul bis bi kese moo bis bi kese moo leen fi téye mais est-ce que yéen pare ngeen. yàgg na bañ pare yàgg na làmb ji bañ ko bañ ko yaakaar lañ pare. ba tey ba tey ñu ngi ñu ngi ci génnaguñ ci ba tey bañ sa waaye xamoon nañu lamb ji dañuy boole. lamb ji da leen di boole mais Siteu tey soo ko gisee gis Papa Sow ban jàngat nga gën a am. non fi ne nii moom wax dëgg yàlla moom Siteu moom pagana si lépp si loo ko xalaatee Siteu pagana si waaw wax dëgg yàlla Siteu moom pagana si lépp waaw wax dëgg yàlla moom bis bi la ñuy xaar ak sama waay dimanche bi bu laloo beneen dimanche bi topp rek ñu xam ne lépp dëgg la. waaw mafia yëpp takk ñu. non mafia bi paga nañu. bàkki Seydina Mohamed ñun yàgg na bañ paga. ñu ngi lay nuyu di waaw lépp jàmm waaw. Baye ñu ngi lay ziare kilifa gi. tur bi nan la. gaawaan laa tudd. Ah, gaawaan ñu ngi lay ziare. ziar kay bu ah, ji nga xam ne moo dëgmal si diggante Papa Sow ak kii di Siteu nan ngeen koy jàngatee ak ah, nan la si jàmm gën si kàmbaaw taxawee. waaw waajal rek. mooy taalibe Sëriñ Tuubaa lañ waajal rek di ñaan yàlla mu may ñu ndam loolu daal lañ bëgg incha allahu rabbi mais tey soo gisee Siteu euh, def conférence de presse fee si John Waar lan moo ko waral. waaw dafa dem ci ay mbooxam rek amaana foofu la ay waajuram dëkk waaw waaye moom fi la juddoo waaye tamit dafa dem dëkkam rek am nu doon jëli rek waaw affaire fekk ko fa mu defe ko fa loolu kase la. est que fi làmb ji toll tax mu jëlee ko au sérieux. waaw loolu tamit mën na ne parce que tamit da koo jël au sérieux moom wax dëgg yàlla da koo jël ñun ñii sax moo ñu ko gën a jël au sérieux billaahi ñun ñii sax moo ñu ko gën a yéene Ousseyn ñu ngi nii di fu mu fu mu jëm ñu ànd ak moom waaye moo ko moo ñu ko gën a yenu waaw te yàlla ko yàlla borom bi defal ndam rek incha allah. waaw fan la toll ak yeneen làmb yi nga xam ne Siteu daan na ko préparé ak làmb ji ni mu ko préparé lan moo la si jaaxal. non bi man dara jaaxalu ma bi moo gën a garaaw ay yeneen yeneen yi noonu jàll na quoi mais bii bii moo ñor bii bëgg dem jëli ko yàlla may ñu ndam kase loolu rek lañ bëgg ñun yàlla may ñu ndam rek incha allahu rabbi kon su ma déggee ni nga waxee làmb ji Siteu moo ko jëlal boppam. waaw bugg ko lool tamit bugg ko lool waaw te di ñaan yàlla may ñu si ndam incha allah yàlla rek la ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may ndam. waaye rumeur bi daw diggante Siteu kan moo koy tëggal ñi naan Jili sekk dana ñëw ñi naan Jili dañ ko aj loolu lan nga ñu si mën a leeralal ginnaaw yow jege nga loolu Siteu. ñoom ñaar ñëpp laa gën a jege Jili. yaayam ak sama papa bokku nday ak bàyyi man mii wax ak yéen ay jili waaw ah. le 6 incha allahu rabi jili dina tëgal Siteu incha allah ci kàttanu yàlla le 6 jili mooy kii yóbbu Siteu incha allah. loolu fan ngeen ko de si jili dañ ko aj ñii ne ajuñ ko loolu lañ bëgg mu leer si bopp nit ñu ñu teel ko préparé balay làmb ji dem ba ci biir ah, di am ay yàqu-yàqu ñu teel ko préparé teel ko saafara bala ñu naan Siteu xam nga dafa xaw a weex donc chaque jour lu laal rek xam nga day indi coow lu bari. waaw pare nañ ko parce xam naa ne tey tey tey xam nga démb sax la rumeur yi gën a jug nii mais tey tey tey tey tey bu soobee yàlla nañ ko lijjanti incha allahu rabbi waaw dañuy ñaan rek tamit CNG dañuy ñoom ñoo fi nekk xam amaana ñoo ñëpp doole dañuy dañ leen di ñaan tamit ñu dimbala ñu te yàlla rek tax te yàlla rek tax dañ leen di ñaan quoi ñun fu xorte wuñ xoco wuñ defuñ dara dañ leen di ñaan ñu may ñu jili tëggal suñu mbër yàlla defal ñu ndam ñu ñibbisi ci ñëpp ci jàmm salaam loolu lañ bëgg waaw kon ñu ngi lay ziare kontaan nañ lool merci beaucoup mon frère. Eh, eh, maam Kanté borom jàmm gën si Kamba ah tali maam Diar. Kanté Baye Fall bi ñu lay ziare. Eh, Baye Fall ñu ngi ziar. lay màggal bu wér a wér. yéen ñëpp ak sëñ Touba. Kanté làmb ji nan nga ko dundee ak sa doomi ndey Siteu. dundee moom mooy loolu. nañ ko daan dundee rek lañ koy dundee. wala est-ce que bii garaaw sax waaw wóor na Serigne Touba. Kanté di kilifa si jàmm gën si kàmbaaw suñ ko waxee ay xale yu bëri weeru ci ginnaawam maanaam di ko xoolee bëtu mag ñi di ko xoolee bëtu rakk Kanté wàllum euh, violation di lu bëri ci làmb Siteu loolu lan moo koy waral. waaw Siteu moom Siteu du mbaru koñ moo tax Siteu yàlla moo ko bindee noonu ñun mënuñu si dara sax da kaa judduwaale lu mu judduwaale la mbaru àdduna la Siteu ñun ñi ñi ne si àll sax ñooñu ko gën a bëgg. barki borom Touba Xaadim Rasul loolu si deretam loo nekk Bécaye Mbaye toog na si télé bi ne booy bi ay nit toppuñu ko ay jinne koy topp yéen fekk xam ngeen si xam ngeen si dara ñaan buy génn di bëre ji li koy topp loolu du ay nit kese kese kese kii ay jinne koy topp moom li ko wax loolu xamu ko sax kii yàlla moo ko defal loolu ñun mënuñu si dara daf ko judduwaale mbëru àdduna la ñu ne si àll bi ak yeneen régions yi ñoom ñoo ko gën a bëgg sax ko ñun ñoom lu leen jaral sax ñun ñoom da nga naan ñun jaral nañu ko barki Serigne Touba benn gaañ wax na ma dama yéen dama leen seetlu quoi yen waa jàmm gen tabaski saree jot tabaski nit ñi dem wut ay jasineer ah ñaw ko xam nga tegal ni sol ko sol sa ay mbara kiis mais yéen rek laa seetlu yéen si àdduna yéen tabaski saree jot saa ngeen dem jënd jasineer sol ko de mais tëree ngeen di jël dem ñaw ko daf ko pàcc sol ay placide sol la fa jàkkaara ba pare dem wut tisetu cité bu bees tax sol ko gars yi dafa ma laaj loolu quoi ma ne ko loolu du ñun suñu boroom la kuti ba mbow li nga li waxee ni di mel ne koo xamante ni sa xol bi yëpp Siteu moo si nekk euh, yan jamono nga xamante ak Siteu fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la juddoo fi la yaroo fi la fi la màggee waaw moom yàlla ñu boole. ñoo Siteu làmb boolewu leen. déedéet mais sa dëkkandoo mooy sa mbokk ki nga bokkal sa biir kër ga sa ko kooku sa mbokk sa dëkkandoo mooy sa mbokk boo yuuxoo moom ngay njëkk a gis. mais Siteu du ay loolu ñun ñoo bokkoon nday ak baay barki Serigne Touba moom làmb ji fu mu ko ko jaralee bakkanam sax ñun xoolal buñ ko laajee sax ñun suñu bakkan ñu joxe jaral nañu ko. kon léegi daal nan ngeen di waajalee combat bi ak fan la leen. dégg ñun ñu ngi fépp amuñu sans interdit ñun fu ñu neex la ñuy dugg parcelle dégg bu ma neexoon léegi-léegi dama fay dem dugg 1 ba 27 ñoo ko moom ñoom amu lenn lu ñu jaaxal ba ci 26 rek lu ko wër la parcelle lu ko wër. Papa Sow man waxuma ak moom sax ponkal yi ne si ginnaawam ñun géants yi mu ragal ñoom ñu koy junj nii sax ñun ñooñu lañ soxla ñun foofu kenn ñu fa teree àgg ci kaw par force ñu lëmbe làmb ñun buñ si génnee suñu loxo mu fay barki borom Touba yàllaa ko bind ci ma Mafous ñun ñoo yor xoromu làmb ñun waa jàmm gën si kaw mbaaw waaw yàllaa ko def du nit ku ko def waaw mais del xool nag bu bis boobu jot. soo xoolee tey Siteu li nga xam ne moo di ay contact am soo xoolee côté parcelle bi ak euh, contact yi nga xam ñi nga xam ne ñooy may Siteu contact ak ñi nga xam ne ñooy may parcelle euh, contact euh, ki nga xam ne moo di Papa Sow est-ce que loolu du xaw a indi njàqare si plan physique. déedéet booy yu ndaw yuy contact ak Siteu sax ponkal yooyu du ko jàngal moom. buñ leen bu ma neexee ñu ñëw léegi léegi ma génne deux cent mille teg man wala trois cent mille wala un million booy yu ndaw yi laa waxuma la de ponkal yi ne si ginnaawam ñooñu ñuy tudd noonu. booy ànd ak Siteu rek laa leen nii di contact am ñoom so bu leen moo neexee teg rëpp duñ ko si booy yi waxantuma laa Gaynde Bamba waaw ñun ay Baay Faal lañ saako wuñ lu bon nag si lamb ji bëre moo ñu yëkkati moom la ñuy dem. foofu noonu laa bëgg nga teg fi loxo mooy lamb ji ngir yàlla nañ ko jël bëre ko si jàmm yàlla may ndam kii la meilleur te ñun man jaama gën si Kambaaw laa dëkk man su ma sañoon Siteu mooy daan su ma sañoon man voilà ñoo bokk dëkk man su ma sañoon Siteu mooy daan mhm. mais nag euh, violation bi nañ si vee bu baax a baax a baax a baax parce que tey ñun jàmm gën si kàmbaaw la ñu am te moom la ñuy tiitaroo nañ si vee bu baax grand loolu de jàmm gën loolu ku judd da nga ko fiy fekk loolu lañ buñ ñu ko réseaux sociaux yi wax nañ ko bu yàgg doomu aadama ñoo ko doon waxoon wala télé rajo yi ñoom suñu alir lañ attanul état bi nii yenn takk der yi nii te gars yi ay Baay Faal lañ barki Serigne Touba boo leen xool da xam ne ñi ay góor yàlla lañ mais ñoom dañoo jàppoon li nekoon bañ juddoo ba léegi mooy daw loolu ñun romb nañ ko weesu nañ loolu ay léegi ñun ay borom kër lañ waaw dañoo yor ay kër tan nañ leneen lu ay violation domicile association malfaiteur vol à réunion waaw dañ si nekkoon mais borom bi raxas na ko est-ce que dégg nga ma léegi ñun dawuñu loolu mais ñoom suñu alir barki Serigne Bamba Siteu buy génn ñun suñu alir dem ci lamb ji ñoom état bi ñoom buñ dee gis loolu duñ attan loolu waaw jaamu yàlla attanul loolu mais bis boobu noonu bu jotee xam lu ko waral mooy booy bi day ngemb day yem génn bëri su boobaa da nga naan ñii seen xel yi dañ ko dañoo tàggoog moom fekk loolu de waaw bëree ko waral. Ah, grand bi ñu lay euh, sant di la gërëm kontaan nañ lool merci beaucoup. Fall. seer nañ bu wér a wér ci loo ne. sant bu ñu fekk leen tey ngeen toog ci buntu kër ki nga xam ne moo di Siteu di waaj combat bi nga xam ne dimanche bi ñëw di si topp la diggante moom ak Papa nan ngeen koy waajee. waaw bu wér a rek. pare nañ si lépp waaw wax ñun daaru salaam lañ dëkk billaahi dañu waaj yàlla boo la ñuy askan buy waaj sëriñ siidi alxuraan lañ yaakaar tey ak ëllëg nag mi ñu koy mooy ngir yàlla yonent bi na taxaw rek dëggal boppam lu ko sita waxoon lañ koy wax rek bu mu def dara ndam li dañ ko bëgg ñun te koy ñaan yàlla sunu borom bu wér a daf ñu jaral góor yàlla yi fi toog yëpp dañoo am yaay am papa te ku ñu gis xam na ni ñun ay jàmbaar lañ si taa ñu jaral ku si nekk donc ub sa bërëbu liggéeykaay ñu bàyyi fi ñu doon xëy fi lay fanaan fi lañuy yendoo fi la ñuy añee la ñuy reeree fi la ñuy ndekkee lu gannaaw bi lay wax sànq rek papa sax dañ ko préparé combat sax tabaski jot ñu tabaskee fii ñun jënd ay xar jox suñu yaay ba pare tabaski bu ndi kër Siteu kon papa jaral nañu incha allahu rabbi nam sedd guy lañu ñaan si moom. soo amoon tey looy dénk Siteu lan nga koy dénk. Siteu léppam daa pare. mais yéen a ngi bëre ku njaxlaf ku gaaw. nee na la loo daw daw daw gis ko la raw dégg nga ma est loo daw daw gis ko la raw. papa dañ ko raw du ñuy sax moom papa activité wul. Siteu nee na ko papa 5 heures moo ñu boole lu waral wax jooju. 5 heures pile ñu boole ñun ñun ak moom moom ak Siteu 5 leen boole. amul leneen papa moo ko rek incha le 6. dinañ xippi suñuy bët ñu xool waa adduna bi na xippi seen i bët ñu xool li yàlla di maye fekk jeexul dañ koy téye ñun Siteu kese du moom bëgguñu Papa Sow mooy kan dafa mën a njaxlaf si kanamu Siteu Papa ñaata at la am compté ko génn ko ay atu Siteu xale mën nañoo ànd di daw. déedéet kuy daw kuy xaar kon Papa day xaar. Siteu euh, face à face première face à face na fu mu jàll Siteu. nit mbokkam Siteu àddunaa ko xam Siteu du mbëru kese jàmm gën Siteu ñëpp la boo demoon àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp il boo taxaw ne Siteu lañ bëgg mu def open press am ba Siteu lañ bëgg mu def émission ñoom dañ la koy yàkkamtee mais ñu gis Siteu di yëngu ci wàllu social à mbër bi su génnee ci mbër bi di dox ci social ñu gisal lim defal ki nga xam ne moo di Fara Fodé di ko ñaanal fi mu tëdd gënal ko fi mu jógee si ci bijaay xam ne doon Baye Fall tigi euh, di def geste bu rafet boo xam ne Siteu def na ko mooy tabaxal ko kër dugal ci waajur wi nga xam ne moo di waajur Foya loolu nan ngeen ko jàngatee yéen en tant que Baye Fall en tant que doomi ndey Siteu. santaan Serigne Sidi Mbacke alxuraan rek ndax doon taalibe mooy nga wax doon Baye Fall bi Siteu doon Baye Fall maanaam mbokku taalibe mooy mbokk Siteu ak Fodé dañoo dund la nga xam ne ne tey ñu mënuñoo wax lépp buñ si eggalee tur suñuy rongan day tuuru Fodé fi mu toll ñëpp la du kër kese Baye Fall yi liggéey ñu ngi jaayante nag ñu ngi ñëw si kaw ak si kanam ngir jàppale yaay Fodé ak Fodé te lépp lu Fodé bàyyi fii mu nekk sen biir kër yàlla buñ leen ëppale ñun de góor yàlla la mais Siteu la kon tey ñaata mbër a nekk ci àdduna bi ku gis mu génn na day def social ngir dimbali askan bi pare wuñ de seen lamb bopp lañ nekk Siteu nag lamb Siteu àdduna bi lay liggéeyal te nañ ñu jàppale ñu ñaan nañ social boobu. mais mu génnewaat tamit ay moto jox ko ndaw yi jàmm gën si kambaaw ba tey muy dox ci social di si gën a xuus si te di wane ne yéen moom tey mi ngi ànd a yéen mais seetaanu leen benn yoon. xaaruñu tamit benn yoon moom si boppam sunu lépp mooy léppam sunu bëccëg mooy bëccëgam sunu guddi mooy guddeem si te daf xam nañ fan la fu yàlla teg lañ ko teg moom fi ñu yàlla teg dañu teg si te bi ñu toll muy toll ni ba nii ñun ak moom Siteu du lekk ñu bàyyi Siteu du naan ñu bàyyi Siteu jàmbaar la Siteu kese. waaw ñu ngi lay ziare. te ay babala la fi juddu xam nga boo demee wane jàmm rek na gën kon nga xam ni ñooñu noonu kenn gënu leen jàmm kon dox na fa. ñun fii jàmm fi am jàmm gën bande amu fi kuy def lu ñaaw amu fi jàmm gën ay réel góor bi nekk mais góor du leen yab de ñun dëkkuñu fa nga xam ne nii dafa metti ñun dañoo dëkk suñu kilifa waaye si di alxuraan jom nañoo def lu ñaaw si kaw suuf ñun waa jàmm gën Siteu nag dafa nekk Siteu moo xam ne bu Siteu mboru lamb ñëpp la Siteu bu jógee ñëppay jóg ful na jàmm gën de nal àdduna bi waaw boo sant boo compté sept personnes ku si nekk jikko booy àndal sa morom. waaw ñu wax la kon lan ngay tëjee ak yan ñaan ngay ñaanal Siteu. mais ñun jàmm ko dañuy yàqate ndam lu sedd guy barki Sidi alxuraan. nag Siteu moom ñëpp ñoo ko bëgg nit ñi ñu mën a wax ak ñu mënul wax ñëpp ñëw bëgg Siteu tey nag interview bi may def nii kii nii muuma la mais dafa bëgg Siteu Siteu moo dee xol bi. bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg Obrigado, Ah. ba tey gis nga ñi ngi euh, tablo xaadim jàmm gën si kàmbaaw ñu taxaw nag euh, ki nga xam ne mooy Siteu genn wàllu Siteu di caatu foraat di mbër mu mag moo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi caat ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay si loo nekk mbaa la bu caat sa doomi ndey Siteu di waaj combat boo xam ne diggante moom ak Papa la nan ngeen koy waajee. Ah, dara bisimilah aouzu billahi mina shaytaani rajim ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli ci bi sant suñu ñaari ah, yéen à travers seen site bi quoi nuyu Youssou suñu xarit yow aussi noonu ak kii caméra di wax waaw ñu ngi ci wàccaay rek liñ waaj moom ay ñetti at ba ñeenti at moom ku parewul dootoo pare di quoi. gis nañ ngeen dem Diofior di dëkku Siteu waajee def li nga xam ne moo di open press lan moo waral lool waaw dara loolu staff bi la rek encadrement bi ñoom ñoo waxtaan ba xam ne Siteu staff bi dafa war a dem dugg regroupement dem loolu fenn toog waaw mën a préparer combat bi mentalement. ak moralement quoi. Euh, soo waxee mentalement ak moralement lan moo wutee euh, yeneen combat cité ak combat bi lan mooy seen différence. non yëpp benn la combat la mais xam nga naan des fois moom li ñu naan xar day weesu mbote quoi. des fois da ngay am di da ngay dimension boo xamante ne yow yaay jéem a innover xëy na si ne instant dafa toll ci phase boo xamante ne dafa laaj moom mu génn fii nekk fenn fu muy stable xelam gën a tranquille mu gën a mën a xelam nekk ci làmb ji mu gën a mën a préparer waaw par rapport ak fii fii nag mooy lépp mais xam rek fii moom xamal làmb dafa métti te wàccaay dafa métti ba pare koñ bi dafa xat moo tax day bëgg moom wéet fenn fu muy nekk waa di entraîner am temps de récupération bu ñu bëgg si moom quoi. làmb ji nii Siteu kan moo koy njuugal ndax ñi naan jili dina ñëw wala du ñëw. yow moom loo ci wax lu ne rek exclusivité ah jiili gëm naa dina ñëw de damaa xamul nag nu muy demee mais jiili incha allah day ñëw te loolu lañ bëgg te loolu yam jiili gars yi aju ñu ko de xëy na dañuy jaawale li bokkul booy bi tuusee sabar bi kooku la CNG aj mais jiili kenn aju ko incha allah dina ñëw bu soobee yàlla nuñ ko bëggee rek ñun mu defee ko noonu. tey soo xoolee Siteu entraînement bi mu yor physique bi mu yor ak par rapport ak yeneen combat mi ban nga koy gën a gis di gën a bëgg. mu lay wane sa mbër liggéey na. waaw moom chaque combat démb Bécaye Mbaye mi nga wax si la chaque combat day day changé te loolu mooy sportif athlète saa su ne boo jugee ci niveau bi da nga war a dem ci benn niveau loolu mooy au niveau professionnel quoi mais athlète du reste benn taille rek wala benn poids da ngay changé di changé chaque période ak li sa yaram di laaj ak chaque combat ak li may laaj ak chaque combat li ngay bëgg ci sa yaram. soo xoolee fii di nga fa gis euh, côté Papa Sow ay Modou Lo yenn mbër yoo xam ne mbër yu am gabari la mais Euh, ñee dañ leen a xaw a ëpp doole ci wàllu gabarit contact bi nga xam ne Siteu mi ngi koy contact fii ak fële lan mooy seen différence est-ce que du leen du ko xaw a pénaliser benn côté. non non loolu mënu koo pénaliser ay gabarit bëre du ay gabarit contact chargé la xale bu ndaw sax mën na laa may contact parce que liñ soxla ci contact mooy cardio xol bu nangu nga bëree tant de minutes doo sonn say muscle du chargé loolu mooy contact contact du ay ngane ñaari pongal bu ñu taxee duñ contact dañuy dañuy taxaw di buuxoon yooyu seen xol lu tax mais ngay bëri xale bu ndaw mu lay curuxu curuxu di song di bëri ak fu nekk loolu mooy tàngal sa xol te sportif loolu la soxla waaw Siteu day contact ak ñi dàq bëri ñi ngi fi wax ñu ñëpp ndax ay champion d'Afrique lay contactal mi ngi ba jonoa di bëri ay boy yoo xamante ne amul fuñ demalul Sénégal bokk ci équipe nationale lutte simple bi kon kooku noonu bëre jaaxalu ko moom rek dafa yor ba feesal kon bu demee jëliwaat leneen yokku si day gën a neex rek kon ñu waxee ci beneen phase bi mooy wàllum violence saa yu combat si te amee ñuy ñuy xool violence bi dafay ëpp doole mbooloo mi koy topp day ëpp doole ren est-ce que pare ngeen pour làmb ji bépp doomu jàmm gën ci kàmbaaw ñu sensibiliser ba violation du fi am est-ce que yéen a ngi veillé loolu bu baax a baax en tant que lutteur en tant que nit boo xamante ni porteur de voix nga. waaw mooy li nga wax rek ñun moom non violence lañ xam xam lañ naan àdduna moom ku boot bukki xaj mbooloo Siteu mooy moom la yàlla defal loo xamante ne yombul ci mbër xam nga ki kin kan xam nga kan moo neex a lijjanti ñun dañuy wax ba sonn mais xam nga ñan ñoo neex a lijjanti boo ñëwee ci jënd benn da a waxtaan ak mais boo ñëwee di wax saam ñaara doo gaaw a jënd Siteu nag nit boobu la bu génnee ñëpp génn mbooloo ku ne ak sa état d'esprit fu mu toll ku ne ak li la ñor ku ne ak li la yëkkati am na ñoo xamante ne Siteu rek moo leen ñor xamuñ lu bon duñ def lu bon. dañuy ñëw ba stade accompagner seen mbër am ñoo xamante ne nag ay defkatu lu bon lañ dëkkuñu jàmm gën dëkkuñu sikaab dëkkuñu faaf mbaaw dëkkuñu pikin dëkkuñu fenn dañuy wër rek lépp lu xew ñu ñëw rax gaay nekk seen biir du def naka sudul noonu ñun nag doxuñ si yooyu ñun ñi di ànd ñëpp benn la ñun mosoo dégg commencé de jarañu jàpp si ñun kenn mosoo gis ñu jàpp suñu rax si ñun kenn kon nga xam ne ñun li ñuy wax li nit ñi di def du ñoon ñoo koy def du suñuy rax koy def ay jàmbura étranger yi jóge feneen ñoom ñoo koy def waaw nga wax rek ku ci nekk boo ñëwee nga xool nu mu rafetee nga defee ko noonu parce que ñun ñëpp benn lañ te tamit xam nga rek dëkk bi demeewul noonu waaw nañ masala naxanteeg nit ñi xam ne boo fi nekkee def na ko su dul noonu wala da jël alalu jàmbur sonaloo kenn sa bopp ngay sonal gis nga nit mënoo ji suukar bëgg am kaani mënoo ji kaani bëgg am suukar mën na ne boo defee lu baax da ngay am lu baax boo def lu bon ala kulli xaal balaa ngaa dee da ngay am lu bon ndax yàlla moo ko kon nag nañ rafetal ñun ñëpp ñu booloo doon benn parce que ñun ñëpp benn lañ lépp lu ñu ñor mooy taral suñuy waajur ak nekk ci li ñu war a nekk kon nag jàmbaar dëgg noonu lay doxee kontaan naa kon sa li ngay ñaanal si euh, Siteu sa kàdd gu mujj. waaw maa ngi koy ñaanal ndam rek barke yàlla ndam ndam ndam ndam bu rëy ndam bu naaw sax parce que dañ koo soxla. merci beaucoup Thiat kontaan nañ ba wér jaajëf mon frère. asalaamaaleykum Cheikh bi ñu ngi lay nuyu tur bi la. man maay El Hadj Sarr euh, yow euh, ku la xool xam ne yàgg nga ak Siteu loolu. làmb ji ni ñu dégg nan la fan la leen toll. làmb ji moom. defoon yàlla moom euh, yàgg na yàggul daal ndax dara yàggul euh, combat bi jàpp nañ ko jàppaat ko mu yàqu euh, di ñaan yàlla nag comme jàppaat nañ ko la 6 yàlla nañ ko fekkee jàmm te tal ko yàlla may ñu ndam bu seddu guy waaw mais làmb ji moom jaral nañu moom waaw jaral nañu moom ndax Papa Sow mi nga xam ne moom mag si tax ta nekk xale di bëre ba jot ko yaakaar naa bu jaralee Papa Sow 10 war naa jaral si ta 50 waaw sama wax bu gàtt daal ne Siteu saa yu génn lii di wàllu misigam maanaam xar ko xoofaam yaa ko koy gérer loolu ndax neex na gérer. waaw non xar foofu moom wax defal moom bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax rek neexul gérer euh, loolu ku xamul lam mënu kaa def euh, wax nga ko sànq Siteu maak moom yàgg nañ trop euh, depuis bu muy nekk xale ba tey jii xam mu wóolu ma mu nekk mbokk tamit xam nga mu yëkkati léppam jox ma ko kon loolu wax defal boo koy gérer rek. da nga ko koy defal ni mu ko bëggee waaw mais xar foofu moom wax defa la moom neexul a gérer moom neexul gérer mais ñun moom euh, dañ si yàgg moo tax man mënatuma jaaxal waaw xar foofu mënatuma jaaxal quoi ndax euh, coono bu ne dañ naa ko si waaw. parfois dañ lay wax biteel bi nii nga koy defee nii nga koy defee mosoo jaawale Siteu biteelam. non Siteu euh, mosuma jaawale buteelam wax defa ne la man sama jàng soriwul quatrième laa yem. mais noo ma joxee butel rek ni nga koy waxee rek ni ma ko mën a liiree rek laa koy bindee waaw ni ma ko mën a liiree rek ba nga xam ne man nii nga ma ko waxee noonu laa koy bindee waaw loolu moo tax man am naa si sens dëgg te tamit am na yoo xam ne tamit ba defal yàlla boo ma ko joxee rek euh, jaru sama koy bind loolu moom des fois dama koy def ndax euh, dem naa fa nga jox ko joxaat ma ko mais yi nga xam ne maanaam mosoo ma kaa jox boo ma ko joxee rek dama koy bindee ni ma koy mën a liire ba nga xam ne jour bu jour ba noonu laa koy defee. xar ko fa si mbër mu mel ne Siteu doon lu metti lool doon lu yéeme lool est-ce que mësuñ na la jàpp ci mystique ba nga xam ne carrément làmb ji dañ laa jàpp jàppaale mbër ma waaw sawar a wax combat Sa Thiès ak Siteu xam naa ne Siteu jàppuñ ko si gàllaaj ba defa ne la mais man moom jour boobu euh, la fàttaliku ne Siteu ba ma koy dala ngemb ba tey jii combat Sa Thiès la mos a gis ñu taxaw bay waaj a takk ngembam bi ma koy wutal benn yére boo xam ne dafa waroon na a yóbbaale isaat may wër yére bi di wër yére bi di wër yére bi avant may ñëw ma fekk ñi taxal si tàngeem ba pare affaire bi jaaxal ma jour boobu am nay bagage yoo xam ne dem naa ba si yoon bi ma xam ne lii yóbbaale ma ko xaw ma woon lu tax nag defa ne daanee si da bañ dugg si oto bi pare si dafa ma ne maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax a baax ma ne ko si lan mu ne ma ni ngeen ma taxawoo tey mosuma santir taxawaay bii ba defal ne la euh, jël moo ñëw tey ñu daan ma mais centre ma fenn si benn côté ndax jàpp nañ ma si gàllaaj loolu mu waxoon nag ba defal ne la euh, dama si sawaroon mais man moom xamoon naa ne combat boobu ba defal ne la fàtte woon naa lu bëree bëri loo xam ne mosuma dal waaw si combat boobu mosuma mosuma préparé combat ñu takkal si ta ngemb ba pare te taxaw ma man maa njëkk a taxaw mais jour boobu taxaw naa ba nga xam ne ñu ngi waaj a takk ngemb bi mu ne ma wutal ma sama maillot bi dama ka war a yóbbaale may wóor mayo bi di wóor mayo bi si néeg bi di wóor taataa may ñëw ma fekk ñu taxal si teg jëm ba pare waaw jour boobu daal wax defal ne la fàttaliku naa ne jour boobu man euh, nekkuma woon hmm. waaw jàpp nañu euh, nga ni mbokk nga gis Siteu mu jël conférence de presse yóbbu ko John Waar loolu lan la def si yow te tamit ñuy waxaat ne Siteu ak ki nga xamante ni moo di Yékini nijaayam la loolu bëgg nañ si ay leeral baax. waaw euh, loolu sax dama si sawaraat a wax li Siteu def noonu indi ko jon loolu defe ne la man sawar naa si lool lool lool lool lool lool ndax ba ma gisee ñëw jon waar li gën a may sens sax dafa tombé mat sa am mais après gars yi ñu bari dañu doon xas di wax ne lii lu tax mënoo leen ko na teel a yëgal ñu arrêté match bi mais comme noonu la ko yàlla dëggalee tamit xam nga gars yi ñëw nañ jël nañ ko xam nga kontaan nañu comprendre na euh, ñu si sant yàlla bu baax a baax di ko wax ne noonu la Euh, journaliste yi fekk la ba sa dëkk jël la foofu tamit euh, waa dëkk bi sawar nañ si tamit di profité tamit di nuyu waale waa ili 22 ili yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen wax ne tamit gis nañ taxawaay bi ndax gars yi fu ne la ñuy fu ne la gars di ñëwee di ñaan xam nga sonn si combat bi bëgg si combat bi xam li leen combat bi jaral ah nga xam ne moo la waaw Yékini man sax euh, ba muy ko bi Yékini di ñëw Dionewar di seetaan si làmb foofu loolu man mii boobu xale laa mais mun naa si wax dafa mel ni comme démb la si man euh, dernier làmbam Dionewar dafa mel ni comme démb la si man ba pare Yékini nekkoon ak nijaay Siteu di ànd ak moom guddi ak bëccëg man mii sama nijaay am na sama nijaay boo xam ne moo ko Yékini xamante nañ bu baax a baax a baax euh, ñu koy wax Lamine Sarr ñu koy wax Kondama yàlla na ko yàlla yaram ti xaaree ko aljana moo ko Yékini bokk nañ génération. Yékini tamit bu mu bëree John Waar ñëw John Waar ndax man dama yàgg a suivre làmb bu muy ñëwee John Waar dafa binoon lettre ne maa ngi ñëw pour jël lese maa ngi ñëw pour jël luur yi raxam bu ñuy wax insabasul moom mooy jël lese yi loolu yaakaar naa bi fi Yékini tegoon ci mukaayam bi ñun ñu ngi woon ci ginnaaw ndax boo jamono yooyu dañu doon defal mbaal ay xale lañu woon quoi léegi fi grand yi di taxawee at ñun fu ñuy taxawee du bokk quoi mais Yékini ci mukaayam ñun si ginnaaw lañ nekkoon loolu fàttaliku naa ko waaw loolu moom wax defe ne la moom dama si sawar a mu nekk si ñun nijaay bu baax a a baax boo xam ne tamit xama euh, booba léegi tamit euh, gis nañ taxawaayam ndax bu noonu na wax ne bàyyi na làmb rek day bàyyi affaire mais ba tey jii tamit wax defe ne la euh, mbaru séeréer buy jóg moom da siy def jéegoom da siy taxaw taxawaay yu rafet. kon ñu moo diggante Papa Sow ak kii di Siteu bitéeli ne la moom day yokk yokk day saf-saf. Hmm, euh, comme combat bi daa am fu ñu toll te ba pare yàgg na euh, ñàkk nañ ci xaalis bu bëree bari fu ne foo yaakaar rek dem nga fa comprendre tamit euh, foo dem tamit joxe fa sax xaalis tey xamal mu la lu ñu la jox da nga koy defee ni ñu ko bëggee comprendre bu teel yi moom war defanee la moom bu yokkul du wàññeeku ndax du dara mboole yi ñëw stade xam nga façon bët bu ne comprendre kon war ngaa mun a aar sa bopp sa mbër xam nga aar ñi nga xam ne sax dañuy dem seetaane comprendre ndax man tamit euh, nekkul ne mbër bi kese laay aar ñi nga xam ne sax dañuy génn fii di seetaan dama leen di aaraale ndax zar euh, euh, xama événement yi xama day doy waar quoi hmm. nekkul ne mbër bi kese ngay aar da ngay aar ñëpp comprendre ku nekk mën a dem si jàmm ñëw si jàmm. Uh-huh. Eh, jërëjëf kontaan nañ. xam naa di leen ñaanal rek làmb ji ngeen dugg seeg bisimilahi rahmaan rahim génn seeg alhamdulilah tamit di leen ñaanal xama seen télé bi yàlla yóbbu ko ci kanam a kanam a kanam a kanam ndax li ngeen def nii yombul aussi tamit di profité tamit di woowaat suñu mbokk séeréer yi o fogole séeréer nen simna fop o ɓiy nuun o ndokoor nuun o ndeɓ nuun sita a jeg combat le 6 novembre in talala fop a ɓay nu ka o kiin a waana o fi'anin a sita bo yaal i ciin dam fa ɓutu guy xama di sant staff sita bu nekk Dionewar di sant staff am bi nekk tablu xaadim xamal mu la di ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal yàlla defal leen sutura defal leen wér xama li ngeen bëgg si seen liggéey bi yàlla defal leen ko xama barke lépp ndax loo gis rek barke bu si duggee rek xam nga mu la euh, lépp day kawe quoi xam nga lépp day rafet quoi sant naa leen gërëm naa leen jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum euh, cher internet tey ñu ngi toog ak ki nga xam ne moo di waajuru Siteu bu jigéen euh, ñu nekk nag ci préparation combat bi nga xam ne moo di diggante Papa saw ak ki nga xam ne moo di sita yaay booy ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yaay ngay dundee làmb ji nga xam ne mi ngi dëgmal ci diggante Papa saw ak kii di sit Ah, sant yàlla rek sant yàlla julli ci yonente bu tedd bi di sant àddina yépp waaw soo gisee tey ah, kii nga xam ne moo di Siteu di sa doom ah, di mbër di yëngu ci làmb loolu nan nga koy dundee ah jàmm rek dunde jàmm rek sant yàlla rek làmb moom fu la rek ñaar nii bëri ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp ndax duñu génn Sénégal te ñoom ñëpp ay doom lañu. ndeysaan moom sax bëggutoon a wax naam ci làmb ji ndax nee na moom dama leen ñaanal rek bëggul di génn waaye euh, ginnaaw ko ñun ñaan nañ ko ba mu def ko kon du ñuy wax ci làmb ji lu bari dañ koy laaj ci wàllu social bi nga xam ne doomam ji di Siteu daf ci yëngu lu bëree baree bëri ba diggante kii nga xam ne moo di doomi ndeyam ji di Fodé bi mu gis nañ geste bi mu ci def tabaxal ko kër def yóbbu fa yaay Fodé loolu bi nga ko yëgee maman nan la sa ah, loolu bi mu ko yégee de dama sant yàlla rek ndax xam naa su doon Fodé itam ñu si ta def rek lay def ndax ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp gannaaw yàlla daal ñoo bokk lépp Fodé moom foo ko gisoon rek si nga koy gis su waxee ne toogul ci yaam lu bari sax. loolu moom wax dëgg yàlla xanaa bi mu nekkee xale waaye bi mu demee ba nekk mag ba xàmmee càmmoñ ak ndeyjoo ah ci Siteu rek la nekk kon nag kooku su la jiitoo dangay def loo mun waaw jàppale ko jàppale ay waajuram te Siteu boppam la jàppale sax waaw boppam la jàppale ndax mooy Fodé Fodé mooy moom waaw ci kontaan bu baax nag. soo gisee ni maar waxee nga xam ne eh, yaay ju baax mooy jur doom ju baax ndax tey amaana tey da ngay gis ay nit ñuy ànd sax waaye yaay ja day nekk sa diggante waaye soo xoolee suñu maman ji ni mu waxee diggante Fodé ak Siteu kontante la si am ak mbégte la si am Siteu sociale nan la ñëwee ci moom mu def lu baax soo gisee fan yi mi ngi jëndal xale ay moto di leen ko touché pour ñuy liggéey. ah loolu moom dafa nekk ci deretam Siteu li muy def dafa nekk ci deretam Ah, dama doon wax ne papam su dul woon ay nit yi muy defal kon suy dee doomam bu nekk dina am héritage boo xam ne mën na kaa demee ndax ah, seen baay bu mu xàmmee ko ba sol daal la waajuram mu jot ko ci liggéey la nekk ba dee waaw bon nag te lu mu liggéey dem bokk na ko doomu aadama kon nag su si te ñëwee mel noonu a ah, dañ ci gën a sant yàlla rek xam ne yombul daal jaam boo xam ne dangay nekk ci àddina loo am bokk kook doomu aadama yi ah loolu ku ko yàlla defal dangay sant yàlla bu baax ndax loolu mooy liggéey boo xam ne gannaaw julli ak juróomi ponk yàlla santaane gannaaw loolu loolu lu rëy la ci yàlla dimbale sa moroomi jullit jox nit mu lekk ba suur soo gisee ko xam ne mën nga kaa dimbale ci xel ci xalaat ci am-am nga defal ko ñun loolu lañu xam loolu mooy suñu deret loolu la xam te mënuñoo bu gis doomu aadama di sonn daal mënuñ koo gis kon nag soo amee loo ko dimbalee tuut rek nga dimbale sa moroomu doomu aadama waaw kenn amul nag yàlla yor lépp képp koo xam ne itam jaam ji defal na ko rek yàllaa la yebal ak moom waaye du nekk danga ko gën du nekk danga am lu mu amul ndénkaane la rek waaw ndénkaane la nga xam ne loo yor rek ëllëgee dana joge ci sa loxo dem ci beneen loxo bon nag loo am rek dimbale ci njaboot ji ndax njaboot njabootu lépp la soo gisee benn mag xamal ne magu ñëpp la benn yaay yaay ñëpp la waaw ñun loolu lañuy dund te loolu lañu ñu xam bon nag su ko Siteu defee loo xam ne mu ngi ci moom nar cee dëkk nag ba yàlla moom ko yàlla na yéex lool nag te loolu laa koy ñaanal saa su nekk lii nga sumb bu ko bàyyi nga gis ma gisoo ma bu ko bàyyi waaw dëkk ci rek defaloo kenn sa bopp ngay defar ndax loo def tey yàlla fay la lu gën waaw. Mhm. bi la Siteu jox la bee Màkka bi loolu nan la def sa xol. ah sant yàlla rek ndax xam naa ne soo toogee ba. nga dem woote yàlla bi ziyaare yonente bi loolu yëpp ci sant yàlla la bokk waaw da ngay sant yàlla rek di julli ci yonante bi mu betoon ma lool nag bettoon na ma torop torop torop torop ndax jour bi ma koy wax jour bi ma koy wax daf ma ko wax dem yaay ko de bëgg ngaa dem màkka ma ko bu ma fonto waay waaw mu ree daal dem ñu toogaat bi am ay jour mu ñëw yaay xam naa bëgg ngaa gis sa xarit de yonente bi ma ne ko si te teg bàyyi mu daal di jonkon téye ma ne ma yaay dama la yóbbu màkk mu ne ko ci kàttanu yàlla mu ne ma waaw ma ne ko alhamdulilah mu ne ko loo ma mos wax de def ko waaw bon nag mosoo ma ko wax bi nga ñëw di ma ko wax bon nag nga xam ne du dëgg la ci yow mu ne ma yaay bëggal rek fekk mu ngi liggéey kër Fodé bi ma ne ko est-ce que da nga ko attan bu bugg a liggéey ak leneen ak leneen ak li ngay def ci suuf dem màkk bi dina dina mën a dem mu ne ma yaay bëggal rek waa bëgg boobu ci la sukkandiku ah bi ma dem ci kàttanu yàlla dem dem bu sell ñàkkuma dara foofu itam jooyuma dara ma ñëwaan mu teral ma wax dëgg yàlla macha allah. Mhm. li nga wax ni sedd na xol te yaay ju ne bëggal na ko doomam waaye doom bi nga tamit bëggal na ko waajuram wu jigéen euh, tey jii soo amoon loo xamante ni yaa ngi koy te rek lan nga koy dénk. yar rek na yaru te xàmmee doomu aadama ndax lu nit am rek doomu aadamal moo la ko may kenn mayul boppam te doo fonkadi nit bi am lenn ci fonk nit rek lan leen lan ngay amee yenn soo fonkee doomu aadama il faut yàlla fonk la ba jox la lim lay jox mais soo doyadalee doomu aadama yàlla doyadel la na fonk nit te di yaru saa su nekk waaw di xàmmee kii mag ki ak kii xale même xale sa danga koy jox cër xale bu ndaw koo jur sa danga koy jox cër ndax jur naa leen waaye man sa rus naa leen si sa ba xool leen wala ma wax wax leen lu leen naqari waaw yaay booy kontaan nañ trop si li nga xam ne moom nga ñu ko may euh, muy jël la interview waaye nag di la wax ne la dooleel ñaan rek yàlla baax na incha allah rabbi soo xoolee tamit lan ngay soññ xale yi nga xam ne ñoo ngi si buntu kër gi chaque jour ñu leen di wax waxu violence maa ngi ko abu bu ñuy dem ma ne ko dal leen ndax lu jàmm mayu nit rek ay du la ko may te lu nit di ut te jàmm ko fa rek mën nga koo ñàkk bon nag nañu dal. te xam ñooy ñan ah ñun ñoom nag duñu ay nitu fitna wax dëgg yàlla xanaa dañ leen ko adressé rek waaye amuñu fitna nit xale yu set xol a ngi ni set nañu xol xam nañu itam fu ñu jëm waaw amuñu benn soxla ak nit xanaa ñenn ñi ñooy ñëw di dugg rek di di leen di rax mais ñii nekk fii jàmm gen nekk xaritu cité yi amuñu tàngaay de amuñu benn tàngaay te amuñu itam xol bu ñaaw pour defal def nit lu ñaaw bon nag euh, na nit ñi bàyyi li nga dul wax sa doomu doomu ja sa doom bu ko wax doomu jàmbur ñëpp rek ay doom lañu foo tibbee sa doom rek xamal ne doomu jàmbur mu ngi ci wetam fa nga teg sa doom di ko fa xool xoolal doomu jàmbur bu jooju bi nga xam ne kooku du def lu ñaaw comme sa doom ni nga koy yéenee même suy def lu ñaaw da koy sàng sër bon na nga xam ne doomu jàmbur waroo ko wax loo xam ne dund ko ñi dunduñu ko doxeewuñ ko waxee wuñ ko waaw yal na leen yàlla defal jàmm ndax fii ñuy toog fii lañuy fanaan di fi yendu bàyyi seen kër yi Siteu génnu leen juddu génnu leen dara te ñu ngi fi toog ngir lan cofeel ak kóllëre nag man tam dama leen di ñaanal fi Siteu bëgg a àgg yal nañu àgg fu ko raw ci kàttanu yàlla dama leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm leeral seen yoon waaw leeral seen yoon dañuy ñuy julli di wóor di def li yàlla bëgg ndax looy jublu rek te boolewoo ci loolu loolu jiituwu ci jiituwu ci rek amaana yàlla du la fàtte la waaw yàlla ku mu ku ko nekkal rek mu nekkal la waaw yàlla ku ko nekkal mu nekkal la soo ko nekkal itam di lay bàyyi ngay baybal rek waaye am dina am benn jour danga da ko rëcc yal nañu yàlla defal jàmm bu ñu rëcc dara ci suñu dund ci kàttanu yàlla yéen itam yàlla defal leen jàmm ci li ngeen di dox yàlla yéegal leen ba ngeen kawee ci kàttanu yàlla baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam